waaw boo déglu Papa Dieng wax na la wax bu am solo nee na la banlieue bi lu tax ñu moom làmb léegi dañoo suuf dañuy dem din dañuy dem géej rawatina léegi saal yu baax yi ñu ngi fii fii macha allah boo fi duggee dañ naan la yaa ngi rëb bu la ko waxul donc loolu yëpp boo ko amee mais champion da koy am Papa Dieng wax na ko jom solo am na suuf am na diin am na géej am na salle de musculation te xale yi dañuy fooyee làmb waaw. mais papa Dieng wax jooju moom ci Leewtoo la ko waxee nee na làmb ji yéen a moom léegi parce que moom jàpp na ne fee amatul espace mais am na benn wax bu mu wax tamit ma laaj la est-ce que loolu nga ci wala déet parce que nee na Fass amatul champion am na mbër mi amatul champion. waaw moom boo gisee mu wax loolu dafa am ñi fi jot a jaar même cas mais après xëy na peut-être yàlla suñu borom moo dogalul ñu dégg leen kon fu ñu war a donc moom lim la wax ci écurie Fass moom moo wax gën a xam ndax xam na li mu wax Papa Dieng mooy làmb lu mu la wax jàppal téyel téere <laughs> daa bala sa digganteeg Fass du du du yomb de daa waaw non la mais Papa Dieng mooy làmb ah Gris du champion pour yow non loolu kan mooy werante ne Gris champion loolu du champion Gris ndaanan la macha allah ndaanan la waaw foofu laay continuer parce que damay continuer foofu def sax Papa Sow xam nga ko yaa ngi dégg dégg nga fan yi coow ak Gris Fass ñu ne dàq nañ ko ci Gris parce que sartu ñu teg ñu ne remplir ko ñu mel noonu yow loolu en tant que athlète mais en tant que tamit sportif de haut niveau loolu ban gis-gis nga ci am Balla. waaw ndeysaan papa nag nit ku nit ku ma respecté la ak ku ma jox cër la puis nit bu joxe cër la moom boo gisee nee na sax moom dafa juum parce que liirul euh, test yi nga xamante ne wax dëgg yàlla moom lañ ko def moom lañ ko bindal bokk. mais papa mbër la champion la Fass fa la juddoo fa la papaam defee lépp xam nga na dem waxtaan ak ay papaam xam nga làmb yàggul yàgg na mais maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla jubóole ba mu nekkaat ci jàmm nekkaat ci jàmm ko moo gën. kon daal yow boo sañoon tey Papa Sow du génne Gris Fass. waaw waaw waaw waaw ci sama xalaat bu bu gàtt bokk pour man gisuma lu tax mu war a génn foofu aussi waaw. maanaam bu génne da nga jàpp ne du nekk avant nekkul avantage am si làmb wala. non pas avantage maanaam dafa nekk ci làmb dynamique bu mu nekk dégg fa lu ne ba heure bii man gisuma lu ci. dem ma ci mën a wax. waaw combat bu neex la comme Siteu dëgg yàlla xëy aussi boo xamante ne jàmm gën dañ ko yaakaar ñi am fu ko bëggal mu dem dëgg yàlla ñi ñam ci moom yaakaar làmb ci moom am yaakaar nekk nekk euh, avenir u làmb. Euh, am combat yu mu perte yoo xam ne waru koon perte xam naa ne nag aussi dinañ ko woo yeddu ko ci ruux gën a waxtaan ak moom tapp xam ne li muy def mu gën ko fonk gën ko jox cër gën ko sàmm te xam ne nit ñi buñ la bëggee lépp looy def rek naam da nga cay nekk mu ngi ca nag mais mu gën a jox cër li muy def am na waaw mu gën ko jox cër gën a fonk làmb gën a jàngaat lépp nag bëri kenn wax ko xam heure bi nga war a dem xam heure bi nga war a toog xam heure bi nga war a dóori am na ci solo waaw man loolu laa koy gën a conseil xale la mu gën a fonkaat làmb waaw Papa la boo xamante ne yàlla suñu borom moo ko ci làmb kon combat boo xamante ne papa fonk na ko waaye Siteu tamit kenn naam war kenn war ko gën a fonk ndax mooy xale donc li muy perte combat yoo xamante da war a jàlle la mu ngi bugg a bëri te loolu du yoon ci xale waaw nag gën a respecté gën ko fonk waaw man daal loolu laa koy conseil papa naam moo ko jiit si làmb lu bëri bari xam naa ne daal combat bu neex la. ñoom ñaar am na ñuy wax ne papa dàq bari nangam sangam yow ànd nga ci lool. waaw xam nga boo seetaanee ñu xam yàgg xam papa mën nañu wax ne papa mu dàq bari mais Siteu boo seetaanee ay kombaam ñaar ba ñett ba ñeent day def demi flexion day sulli ay wax day jàpp ci li nit gën a maanaam boo ko jàppee ci lu tële mooy day njat day njat ndigg kon moom mbër la boo xam ne ku mun bari la waaw tëlewul bëri daal tëlewul bëri mais fekk mu ngi dem ci làmb ngay gën a xam li mu gën a mëne mais bëri Papa Sow kenn du ko laam-laamee macha allah. ñoom ñaar ci côté xeex kan moo ci gën bagaar. waaw boo seetee nag côté xeex Papa moo mu gën a xeex bi mu gën a normal ci liñ koy waxee Siteu aussi tamit day xeex xeex bu normal mais làmb moo nekkul loo xamante ne mun nga dàq sado ci monde bi xam nga ñu Balla Gaye munu xeex munu xeex kenn ma sado kenn dàquma dóor gan kenn dàquma def nangam mais bor bi siflee loolu amu fa mu mbedd la ay bagaar la lu question ay dóor arrêt de gauche wala nangam moo ma gisee ñi ñu naan ay ñoo xeexam dafa jub ay xeexam dafa nangam ay rey la may def xam baa li ma nga mën a xeex loolu mën a góos jam góos mun a jam droite mën a jam uppercut mais bu sa morom taxawee la fa jar naan benn benn loolu day yéex di. maanaam na dal daal. non Touba Dakar la. mu dal baax na mbaa. mooy Touba Dakar xam nga nekk fi naan xoolal mbër yëpp ay jàng box ku ne benn mbër mënu xeex mu ngi nax boppam mais biir làmb non yooyu amu fa. ay bu jógee dal ci masuwaar ki bët. ay caaxaan la rek. na tal leneen lu defar xeex de xanaa. ñooñu non ñi a moytu ku est ku ku xale bu ndaw soog loolu dina yëg mais combat ba kon yow foo xalaat mu jeexee ci bëre wala ci xeex. mën na jeexee ci xeex mën na jeexee ci bëre waaw ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ragalu ci ah. te dañuy xeex waaw. c'est loo koy moytuloo ci Papa Sow. mu jox ko cër ko fonk ko combat bi mais noo mel ni ko ragal ah. papa loo koy loo koy loo ci Siteu moom. papa li ma koy moytuloo ci Siteu mooy. mu respecté ko te bañ koo xeeb waaw. foofu loolu leer na